lottoon naa si jël kàddu waaye bi ma laataa jël kàddu damay tàggatoo ak yaay yu bëri te nit koo gis dafa am kilifa bu ne ma woon ma noppi waaye mbaax dafa yomb sa goro dafa toog seede say dëkkandoo toog seede lépp lu waxee di nga ko waxaat ëllëg kon nit ki lépp muy def na yàlla ndax yàlla taxee ngay def moo waral tey jii jaajëf mën a am ñuy ñaan yàlla nag nit ki wax wax baaxam yombul surtout jamono bi ñu toll nit ki ñu ngi koy jërëjëf am am waaye valeur bu doomu aadama am ndax nit ki ñu koy sàmm ba tey yaakaar naa sàmm say valeur moo tay tay bi soxna si mën di wax bu baax ñuy ñaan yàlla bés bii mu jëm muy san soreetul ndax boo nee 21 dañ koy yóbbu sore kon soreetul taw bi ñu nangoo dogal dañuy sant yàlla bu baax di wax ne kat ñaan nañ yàlla yëpp teew ñu am si réussite totale di ñaan yàlla yàlla guddal sa fan musal la si ndox ndox dàqal la cat ak seytaane te gën la jubbaleef say dëkkandoo gën la jubbale say bopp si barke yeneen bi alayhi salaam ñu ngi jéggalu baax si kàddu yàlla yàlla gën a jubale sa wàll lépp laa yóot man xam na ma naa si jot ndax yàlla xol xol bu rafet laa fay soo xol ba rafetul woon kon lii du am ndax naa ko wax naa ne yàggu laa fee dëkk mais fi dëgg si man xam na ma réccu na ko ndax li tax faa ñu wóor ñu wuy la ñu la wala ma tey mën naa ñëw onam sa buntu kër laa la yem doo wax ak ñoom boobu waa kamoo la perte xaw ala perte merci mais li ma la conseillé mooy féete sa tànk ba nga fa teg ndax na man sa buur ndam laa la am ak Seydina Mouhamed sama la ko tuddee su suñu ndam la la la fan rek yàlla defal lépp la bëgg ak yàlla daal defal yàlla dàqal la saytaane ndax moom moo lépp yàlla nga yàlla dàqal nag maa ngi jéego ci kàddu yi nag ban ministre bi jox ko wàllu sport euh, li ñu gën a xalaat ba ñu jox ko lii suñu mag la démb la mais aussi côté bi ñu ko jox lii daf koy dooleel dafay tax ñëpp xam ne moom la ñu jox lii te it nag pàcc bi moom moo si waroon a def alalam pour ñu pour pour mu ñoŋ wala bokk pour mu pour ñu mën ko organiser noonu laa ko mën a wax wala pour ñu mën ko dundal mais ñun comme ay rakam lañ duñ ko xaar déedéet bu ñu jàppee fii keneen jàpp feneen keneen jàpp feneen bu ko def li nga xam moom lañ ko dénk muy sport mën a dund kon bu ëllëgee monsieur le maire du am lu mu wax ñun li ñu def dem jënd ji licence presque quatre cent mille ñëw paré pour dundal li nga xamné ni moy côté béré mom lañ xam bu fekkone yalla su borom dogal na nak ñeneen def ni ñun kon côté sport dina dund fi ci commune commune bi yépp am nañ yaakaar ne nag euh, ñeneen ñi dinañ def ni ñun parce que ku nekk mu ngi jëm actuellement benen benen bi stop moy euh, suma grand la wax na ko legui lolou du ma si jaaraat suma mag la xam naa tey nag la yàlla dogal may door a ñëw si këram xëñ na moom sax xam na ne aw ma jot looloo tax euh, jot amul mais yàlla dogal na ni lii mënul ñax te dafa am beneen geste boo xam ne nii daf ko def bërki démboo njaay jàngul xam nga nit ñi souvent dañuy xaw a sax di ko xamne yalla yàlla daf ko dénk ay ndombal tank mais kéro dama gis ben geste bo xamne man ma jaar fu ne pour gis ministre bi pour wax ak mom ñu nan no protocole nangam nangam mo xaga nga mu dama ma ñëwal ñewal legi ma ñew mu ne ministre bi ki yaw la soxla ñew leen taxaw lay wan rek ki jappul dara muy dara manam kum mën don nit nga yalla moy bu lolu ay wax la te pourtant ñu gën a jege ministre bi ñuy baay ñuy ndijaay yoo xam ne su du ma cité ay non mais ñoo xam ne nii ba ñoo mën naa ne mais geste bu mu def noonu loolu du lu ndaw ndax kenn amul fitam kenn amul fitam fii parce que dofuma fi laa dëkk te boobu yàlla suñu borom dafa dogal comme suñu programme lañ am ministre bi ñu am le 18 bii ñëw drapeau ministre bi pour gis ka nekk problème mais bi ma ko waxee si bis bi man ngi ko wax ay 16h mu ma guddi 19h ñëwal fa ministre bi nekk tey ji di nga xam loolu keneen ku ko si defoon tey boo ñibbee doon nelaw xaw ma nag lu tax waaye yàlla su boroom dogal na loolu nekk gest boo xam ne nii danga wane foofu ne yàlla mooy buur te ñetti faa yi nit ku ne war na see bàyyi xel bu baax a baax a baax mooy falee euh, falu folleeku ak faatu nguur ak yàlla rek a dul jeex falu folleeku faat nit bu falo nak dafa am ño xamne dañ lay dar duñ la ñëwé wax dëgg gis nga tay ji li muy bëgg bëgg li ma ne luma neex yëpp dafa ma vocal na ma stade bi du ci mëna jox parce que moré la Mbao def ba est-ce que waxat na ci dama ci waxat parce que lu lu ci ku la mais lu yoru maanaa la parce que Morel Mbao moy priorité dañuy dem fële si stade bu ndaw bi amul problème mais wala organisation bu soobee yàlla lépp loo xam ne nii dañ koy gis ci télé bi ñu di nga organiser ci Dakar bu soobee yàlla suñu borom dinañ ko organiser fii ci Mbaaw samedi bii ñëw incha allah lépp lu mu laaj dinaa ko amul sécurité amul lenn tout bu soobee yàlla ku nekk dina ñëw ci jàmm ñibbiwaat ci jàmm ak salaam feetu ci jàmm ak salaam delluwaat sa kër ci jàmm ak salaam incha allahu rabbi barke Nabil Moustapha loolu daal laa amoon ma si wax maa ngi jégalu bu baax nag comme wax yombul eh, grand frère def naa lépp man na kaddu gërëm kaddu sant di sant samay mbokk yu teew sant aussi tamit samay dëkkandoo parce que dëkkandoo aussi tamit mbokk la te du bëggatuma sax wax dëkkandoo di sant aussi sama njaboot sama sama soxna ak ay xaritam ak ñeen ñii ñëw gisaleeg bëreeg Abdourahmane ak Omar ak Thiam cant ji am na tàmbali mais amul fu mu yem parce que li ngeen def lu rëy la tànn ay ay ay kilifa yi ngeen tànn ma tuddee ma drapeau bi drapeau mbaaw production muy première édition boole ay kilifa daf ko nekk na daal lu ma lu ma lu ma lu ma neex sama xol te li ci gën a neex mooy politique ak loo mënti def da am kilifa mënoon ngeen ma tuddee ma wax ko sama kilifa sama kilifa gàntal mënoon ngeen ma tuddee ma wax sama sama sama kilifa mënu ma dee dam bàyyi ba ba ba après da ngeen ma ko tuddee ma wax sunu maire le ministre Abdou Karim Sall mu bég kontaan si joxe engagement bi day teew incha allah rek donc loolu mu nekk lu ma neex parce que bàyyi ngeen ci ñu bëri tuddewu leen mais ngeen tàmm ni ñaar ci njabootu Abdou Karim Sall muy sama grand Assane Diop bu mbaaw ak man tuddee ñu ñaari drapeau te ñaar ñooñu ku leen tuddee drapeau je pense que Abdou Karim Sall nga tuddee drapeau. Mhm. parce que si lu ñuy dox si lu ñuy wax lépp ministre moo ko wax lu ñuy def yëpp ngir ministre am ndam la. Mhm. te yàgg na te ñoo ngi ci. Mhm. donc may ñaan bés ba bésu mbaaw la. parce que ay doomu mbaaw ñoo ko tëgg. ay doomu mbaaw la nga tuddee. kilifa mbaaw aussi tamit moom lan ka nar a sargale. parce que drapeau yëpp tey suñu paree monsieur le ministre ko moom. ay drapeau donc ñun dañuy représenté rek mais drapeau la monsieur le ministre maire Abdou Karim Sall di woo nag waa Mbaaw yëpp nag di woo waa Mbaaw yëpp di woo tous les sportifs parce que lamb quand gëj naa am ci Mbaaw parce que si mbas la mbas la lu jóge si sunu yàlla sunu borom daf mbas mi jeex na naam waaye tamit qu'on soit prudent rek te làmb lamb ji tamit ku xam mbaaw xam ne mbaaw dëkku cosaan la dëkku lébu la te cosaan nag sport mooy lamb di woowaa mbaaw yëpp kër Mbay Fall ak Zak Mbaawa Louis Lissa Petit Mbaawa ñëpp ñoo leen di woow ci bés bi parce que sooy jàppale da ngay jàppale ki la jege ku la jege gën a yaay gën a yaay gën a jege te ñeen ku leen jàppale fu ñuy dégg yeneen promoteurs yi incha allah wala daal na ci dégg. parce que ay ndaw ngeen te ndaw moom karaw bu ñuul moom ñàkkul dara. donc di waa woo waa mbaaw yëpp tous les responsables politiques yi nekk mbaaw yëpp ñoo leen si woo. rawatina nag ñu nekk ak ak monsieur le ministre Karim Sall. bés bi nag incha allah wala li nu mën daan ko ci def yàlla nag moo mën matali lépp mais li nu mën ak suñu yéene daan ko indi. daanu jéem a taal bés bi daanu jéem a jaay manifestation bi daanu jéem a def une bonne com communication pour que làmb ji quand même am dayo boo xam ne dina wees suñu jox ñu ñaan yàlla nag mbër yi je lance aussi un, aussi un appel aux sportifs parce que làmb sport la du violence du dara supporter aussi tamit nanu xam ne balaa ngay nangoo ndam intégrel bi defet balaa ngay ne damay gañe intégrel yow defet yow ba ba pare parce que sport ñaar ak ak defet wala ndam match nul sax pour certains ndam la pour d'autres defet la donc ñu leen di ñaan ñu ñëw ci njëkk teranga ci discipline parce que ku def ay million ci làmb ji quand même kenn ku ko yàqal donc loolu laa lay ñaan bëri mbëri ñooy mayndal seen bopp xaalis nanu ñëw bëri teg ko ci discipline Dakassi sport que le meilleur gagne que le meilleur gagne yi aussi tamit xam naa ni lii dañuy essayer rek waaye lii normalement arena la war a ndam mais daanu ndajul suuf nan ko dooree fii parce que tepp tepp a gën yure nan ko dooree fii édition yi di ñëw incha allah rabi édition yii di ñëw ñu xool nan la ko mën a organiser ba dem arène parce que il faut le dire le maire c'est un nouveau maire

jooy nañ ko yakuna mais à chaque instant il est au au comment dirais-je au au niveau des populations. Mhm. li que firndeel moy korité dafa jot lu musul am mbaaw. plus de 2500 aides mu joxe ko. lu musul am mbaaw. 2500 aides mu joxe ko. di def analam ci mbaaw. te budget commune de mbaaw sooy xol pareegul mars bi la nga commencé def da lay wóor ni xaliss amu fi mais mi ngi jël ci alalam. mi ngi jël ci posam di pour répondre aux besoins de mbaaw ku bëgg la te ku bëgg mbaaw nag waa mbaaw dañ parce que c'est pas donné à n'importe qui d'être ministre Il choisit que parmi tant de départements tant de communes y ko un ministère clé parce que l'environnement, ku wax environnement mooy ëllëgu Aduna. ku wax environnement croissance économique de l'environnement. environnement dans tous les pays développés l'environnement reste un secteur clé de l'économie ñu jox ko nag mu si def ay jéego yu am solo di ñaan yàlla nag ci lu ñu jëm tant bëgg sargal ci làmb ji sargal ko wane na waa mbaawkat rëccuwuñu liñ ko fole di leen tendre nag la ngeen gën a jàpp monsieur le ministre ngeen gën a jàppale monsieur le ministre jàppale bi nag waxuma politique waxuma lenn mais moom la yàlla def ci mairie bi tey ci mairie bi su baaxee mbaaw a baax su amee ndam mbaaw am ndam te su amee ndam ngeen nekk gone nekk ay xale seen ëllëg day leer donc nag kàddu yi bëgguma mu gudd waaye nag xam nga ne doppat ci sot la bokk politique boobu dañ ciy dugg te du cadre bi mais euh, gërëm di leen sant di bëgg aussi tamit ci distinction bi incha allah macha allah